mais ñan ñoo juk mo tax lamb nag ku ci nekkul la mëno xam man ñi may sot dafa bëri ñi may dafa bëri barki serigne touba mbake makan man makan boy nek sama social buñ la doon wax sama combat da ngay téye sa gémmañ ci ay yu mag yo xam tan ni heure buñ né suba la sama combat rek ay dëmm lañ dañuy jëfru dañuy juk dañuy juk dañuy jóg dañuy juk eh, bu bu len jarale ñu ray nak sax dañuy juk pour depp sama lamb barki sayidina muhammad barke arxuraanu karim daf leen koy jaral. kan. si lan. ah di communiqué na ne bu la. waaye dimba waay bàyyi ma ak ñooñu waay nga naa ma lii man nag maa mën a yóbbu kii cybercriminalisation nar ma fi yóbbu kaso may wàcc sama làmb la nga déstabiliser ma loolu bokk na si lu gën a yàq sama làmb. moom Boucher loolu mun na def yow ku la yóbbu woon cybercriminalisation. yow waaw. mais imagine toi loolu noonu nga ngay préparer combat kooku premièrement moo ñëkk a yàq sama làmb. moo njëkk a yàq sa yàq sama làmb moo ma njëkk a moo njëkk a yàq sama làmb. moom Boucher. barki Seyni sama combat des 28 jours nga yóbbu Boucher ak cybercriminalisation si ay détails ay wax yu sew kuy préparer combat. nekk lu ma digg làmb. est mais kuy kuy bëre combat kuy préparer combat capital nga koy xuuxal di ko yóbbu ay cyber. ba pare yow ñu daan ko làmb yi jeex ñu dëkk la micro ngay wax ci man loo xam ku la dégg mel ni yow ku ku ku bëgg Boucher da nga. di xànjonte. kon jàpp ne Boucher makan est-ce nga ni man man makan kuma pelant, kuma pelant ma pelante naroon ma ba aduna wërndal kep ñep yëg ko makan yow koku bu la jekko dalay ray makan ku la yóbbu kasso mais makan yow fini ni ñaata ni dafa japp ni yobu ko prison ñen ñi dé ci bir prison bi ñen ñi génnee fak feebar bo xam te ne duñ fi yag sax gën aduna man sama ñaata ni lañ fi yobu ay prison ñu gën aduna ci prison bi mais prison ku ku la fa yéene kooku ray lan la bëgg. mais man kooku man léegi après mooy loolu li kooku yow après da ngaa mën a waxati ci man loo xamante lu ma lay gëmee. mais amul aade man li may wax nii ñi may seetaan xam nañ li may wax commentaire yi képp ku la yóbbu prison laa la wax kooku dee la la yéene. nga ne amul aade. parce que alxuraan premièrement rek loolu moo njëkk a yàq sama làmb barki sayidina Muhammad lolu dafa yak limo ligeyon yep yak limo ligeyon yep yak sama der tojal ma ñëpp ku net Irak no du Irak Irak man ma sama ruq rek tok japp sama ñambur quoi ah, waaw non non ta parce que nit munoo ko pi lu bon eh, eh, jàppale woo woko ci combat ba pare toog ñu dëkk la micro ngay ngay ngay wax wax yoo xam te ne yow walla ñi lay seetaan sax xam nañu gëmoo sax li ngay wax man xànjoon tew tëw ma de te instant bii nii nii nii nii tey laa gën a di am na yenn yoo xam sax duma ko wax. tey nga gëj tey am na yoo xam sax bàyyi naa di ko wax. tey nga a soxla. léegi damay jëf. bu bul jëf bu boo jëfee dina ëpp loxo. barki Seydina Mohamed loolu noonu bokk na si lu gën a yàq sama làmb. jëf yow da loolu bokk na lu gën a yàq sama làmb rakam génn attaqué ma. rakam. mais yow gis nga lépp rakam génn wax na si man ba léegi tontuwuma ko sax de man du ma tontonte de man maa nekk nit koo xam ne ni wallaahi du ma tontonte te lépp un jour vingt bis yaa ngi dem at yaa ngi dem nañ dawal ba ci kan. non man kay maa ngi nii toog sedd def sama calmement. waaw moo loolu man li ma yàqal xam naa ko. xam nga waaw moo loolu noonu la. nooy def waaw. non def dara lu dul préparé waat waajaat rek. en tant que bëru jeunesse yi tamit. patriote yi gis naa tamit ñu kañoŋal ki nga xam ne moom moo di. Tapha ba non xaaral ma dugg ci patriote yi jeunesse bi. gis naa tamit ñu ñu ñu kañongal dafa Tapha Mbeur dajaleel ko xaalis bu bari te Boucher tamit ku wax Boucher te wax bë bëru jeunesse bi te nga yàgg a xeex ak Ousmane ko xeex ak waa Pastef. ndeysaan dëgg la. Wow, ba maanaam ba na ba noonu si bañ pelantuma sax ba ma na dem cybercriminalisation te lépp ndeysaan jeunesse bi ak ak ak projet bi mais tey su ma demee ba nekk sama biir combat ma gis ay patriotes di defal ay ay ay ay ay cagnotte ay ay ay ay ay ay ay patriotes yoo xam ay ay ay seytaane lañ waaw di di di di taf daan afafaa mbër la ñuy cagnotte daal di di di di fan di di di di di di di wax loo xam ne gëmoo leen sax li ngeen di wax bàyyi la fi yow. te ñi wallaahi mais xoolal li ma dajale mais xoolal ma li ma daj ci combat ah, bi. da ngay xool li ma daj ci projet bi. Ah. kon tey su ma demee ba tey moo ma am fu ma toll ñu ñun ñu ne ñu ne Tapha Mbeur maanaam fàtte nañ li fi Bou Siteu def ba bañ naroon ko yóbbu cybercriminalisation ah, kon su ma gisee ñu defal Tapha Mbeur kañot taf ko si ay Mollah Morgan di ku nekk di fen di di ko taf di di duul hmm. te ñoo ñëpp ay tapet lañ duñ dërëm waaw yow ñu bàyyi la yoon kon defal dajale ñu la dara bu ak ni nga mel ni. barke Serigne Touba Mbacke. dara wax mais yooyu noonu yëpp yëfu seytaane la yooyu duñ sax ay patriote. duñ sax ay patriote duñ tus. yow yaa xeexal Diomaye barke Seydina Mohamed man maa nekkatul sax si yooyu ay ay ay Diomaye ak ay ay Ousmane Sonko yooyu. Ousmane Sonko lenn laa gisoon su moom moo tax mooy yërëmoon ko rek muy muy muy muy muy metti duñ ko doon teg di ko dóor ay pompe à di ko jàpp xama di ko di ko jaay doole man looloo ma metti woon looloo taxoon sax ma gën a dugg ci lam ci combat bi waaw mais nekkul sax ay patriote yi man patriote yi bàyyiwuma leen sax xel waaw mais am na yenn yoo xam te nii yëful naa fekk la waaw yëfu am na yoo xam ne yëfu naa fekk la du sax yëfu patriote yëfu naa fekk la yëfu affaire la boycotté bu Siteu. la boy nag waaw lañ ma boycotté. la seetaan dafa bari lan mais ñu fa bee yéeg. non combat bi nag jàppale nañ ma si de mais dafa am lan loo xam ne dafa rafet mais nga defal kii kañot si mbër yi wallaahi si mbër yi tafa mbër moom du ma ko duma ko kii damay damay wax dëgg ci mbër yi maag tafa mbër rek ñoo fi ñemee taxaw wax yenn wax yi xeexal jeunesse bi. xeex sunu ak ak sunu yelleef. Mhm. xeexal Ousmane Sonko. Mhm. mais tey bu ñu demee ba tey ñu toll foofu noonu si combat bi Tapha Mbeur maa moom ñu bokk benn journée mais booy def koñat defalal ñaari booy yi kañat xam ni booy yi nii dañoo daj ci jeunesse bi lu nekk man ma daj ci loo xam dañ nar ma si yóbbu cybercriminalisation. mais bu ngay xeexal Ousmane kon kañat moo taxan ngay xeex. non kañat taxul mais gis nga am na leen xam dafa rafet acte bu rafet mais li boo defalee Tapha Mbeur kañat mais bul fàtte Bou Siteu koo xam te dañ naan bu Siteu jeunesse bi. dafa am li ñu ko defal noonu ak ma yéene mais dafa rafetoon ñu ñu xool Bou Siteu xam ni kii kat daj na ci jeunesse bi loo xam ba ñu nar ko fee yóbbu cybercriminalisation. ñu lay kañagol pour nga am oto. waaye damaa gaañ soxla ma la laay doyee oto. oto bu ma ko bëggoon wallaahi dama koy jënd sam bopp man. mais xale laa mooy loolu cat baaxul wax baaxul mais oto mais yow man maa ngi si maa ngi liggéey ak ay marque mm-hmm. te yow xam nga ne ay ma lañ ma fay. may liggéey ak ay marques yu. waaw ay ay ay as ndaw ndokumaan. original ñoo ñëpp ay ma fay. ñu desal ma sama ay millions yoo xam te nii bu bu bu bu mois yi jeexee ñu fay ma samay millions loolu mun naa si jënd oto ba jëndaat ay T max. nee nga bàyyi escorteur. ndax dégg nañ bi ngay wàcc Tapha Gueye yooyu yëpp. waaw yooyu yëpp maa nëbb ci làmb ji. te man ndax man jàmbaar laa. ndax combat bi may bëre combat capital la mu ngi nii te yii nii yëpp su ma kii woon yii nii yëpp mooy loolu sama loxo bi yii nii yëpp maa wanewul te yii nii yëpp loolu ay science mais lépp si préparation combat bi la mais dafa am leen loo xam ne dafa rafetul waaw nit ñi lañuy yemale moom gat sa gat sa la woon non di wóor na yàlla kooku sax bëgguma sax ñuy ñuy ñuy débat si moom quoi su may wax si moom nii sax day mel ne xam nga damay bëgg di wax si moom wala dara mais gis nga ni da ngay dëggu man bugguma ñu talal la nga rafetal bu bu yi wàccee xam nga waaw. mais seen diggante du dara lu dul ku ma yóbbu prison rek man bàyyi naa la man ku ma na ma yóbbu kaso waaye yow boy booy Serigne Touba dañ ko fi jàpp jaajë yóbbu ko prison kon man ku ma nar a yóbbu prison waaye yow waay booy waay ma waay. barki Serigne Touba Mbacke bugguma sax nañ nañ nañ wax ci lenen mais mais si waaw. ñëwut. kan nga ko. waaw woo naa ko combat bi yëngatu wuñ sax xam nga yëngatu wuñ te ñooñu sax seen wax sax la bugutul wax ndax ñooñu liggéeyaguñ ci réew mi liggéeyu fi deureum di gene di di di di mbel-mbel di wax bala nga wax nga liggéey projet lañ wax nga liggéey nga tak rojo yi di wax rek. ñi yëngatuwul yëngatuwul te te te te liggéey leen te fii ku fi sàcc alalu jeunesse ma génn la yaa sàcc alalu jeunesse bi. may dara. barki sëñ ku fi sax famille sax xaw a kiling sax ma génn.